kon jigéenu jullit ci gàttal su fekkente ne bëgg na ak njabootam baax faw moom ci boppam mu defar boppam ci ak mbaax nan lay defare boppam ci ak mbaax mooy li ko yàllaa ko yonentam sant mu ne ca buy génn na mel ni ko sharia digal mooy na fexe ba muur aw yaramam ba dara du ci feeñ ludul xar kanamam ak tikku jaraam ndax loolu sharia ko ci jox ndigal loolu moo di mbaax ba ku ko gis naw ko ba xemmee ma mel ne nga xam day woo nit ñi ci lu baax loolu donte du ngeppi aw miñam jigéen ju baax noonu lay mel kon fawum nit ki baax ci boppam ci ak colam ci ay doxinam ci ay waxinam waaye mu wattu ay jaamu yàllaam du sàggane julli du sàggane mboolem farata yi nga xamante ne moom la yàlla subhaanahu wa farataal ci moom te mu def ko na ko yàllaa ko yonentam santaane lii mooy li njëkk ñaareel bi mooy njaboot gi na leen teg ci aw yoon waaye mooy façon biñ ko waxee euh, ñu bare bari bu ñuy yar seen njaboot léeg-léeg seen njaboot di jàdd yoon ndax léeg-léeg nga am doom joo xamante ne ju naqaree yar lay doon bi maanaa day luubu bu boobaa doom ji lu mu def ci njombe jigéen ju baax ju bëgg ak njabootam baax du ñaan yàlla doomam du ne ko yàlla na nga dee wala yàlla la yàlla rëbb wala yàlla na nga alku ñaanu gu wayjur ci doomam du moy moo xam lu baax la moo xam safaan kon lu matam lu matam ottandiku la dafa am jenn jigéen ju baax ju amoon doom joo xamante ne ju luubu la lii ñu leen di wax sunu benn ku ñu doon jàngal moo ñu ko nettali ku xam ki nga xamante ne moom moo moom la lii dal ci kawam nee na jigéen ji doom ji dafa luubu woon lool bu amoon gan faw mu am kersa ci kanamu gan ñi ndax comportement doom ji nee benn bis mu am ay gan yu mu fonk lamu andi won di len ko ganalee dom je këpp ko ci sen kaw nga xam dom ji yegg na fofu ci nga sa yu amé gan dana rus ndax dom ji dafa luubu lolou yalla da koy natto ay nit waaye jigen ju bax joju bu dan dor xalé bi bu don yu eh, bari ci jigen ñi dañ koy ñaan yalla yalla nga wala yu mel non mom bu dan dor xaleem lan lay wax ددان وخ اللهم اجعله للمتقين اماما yow yàlla yal nang ko def yelimaanu julit ñi xale bi te boobu xolam mi ngi bëgg a dog ngir metti gu mu metti ci li xale bi di def waaye saa yu koy dóor lu xale bi mën a def bu koy dóor da koy ñaanal mi ngi koy dóor waaye yàlla danaan yàlla yal nang ko def yelimaani julit ñi sunu cheikh boobu nee na xale boobu fan la mujj dafa mujj nekk yilimaani Makka di jiite jullit ñi ca Kaaba ga ba sunu jonn yàllay tey ji bu ma tuddoon turam yéen ñépp xam ngeen ko loolu lan moo ko indi mooy yàlla tàggatal ko yaay ju baax waaye bu doon bu defee lu juunu yaay ja ñaan ko yàlla rëbb ko bu boobaa mbir ma mën naa bañ a mel kon jigéen joo xamante ne bëgg na ak njaboot gu baax faw moom ci boppam mu tege ci aw yoon benn waaye ñaareel bi faw mu teg njabootam ci aw yoon teg gi muy teg njabootam ci aw yoon nag naka la koy defee ngir mu jaar yoon mooy day xool ni lislaam digle ngir ñu yare ko xale mu yare noonu xale yi te mbokki jullit yi liy wane ne baaxuk ay wayjur rawatina jigéen ji moo xam jigéen ji la moo xam góor gi la baaxu ñaari wayjur yi dafa am jeexital ci xale bi xool leen keroog ba nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala mi ngi nettali ca suuratul kahfi ñaari xale yooyee nga xamante ne seen baay dafa faatu woon bàyyi leen am alal joo xamante ne ma nga ca la leen seen baay bàyyee mais xamuñu ko ak nettali ba na mu guddee ba mujj ba xadir ñëw jubbanti jubbanti miir ba miir ba nga xam ne moo doon waaja a daanu te bu daanu woon ñu gis alal ja seen baay bàyyi nga xam ne kon bu boobaa nit ñi mën nañ koo ndar joo ñoom duñ ca am dara xadir ñëw jubbanti ko ginnaaw bu ko yàlla xamalee la fa ne ngir bu xale yi màggee mën a jot seen alal yàlla lan la wax ca gannaaw ga lu mat xel la yàlla nee na wa kaana abuhuma saalihan seen baay dafa baxone ndax yalla day ñew rek ne seen baay ku baxone la ngir ne dafa bëgg wax rek ne seen baay ku baxone la waye dafa bëgg xamle ni loli tax yalla jox ndigal khadir ngir mu jubanti ko ngir xalé ya man ca jot bokku na ca la ko waral seen baxu baay gu rogalat ba yegsi ci ñom ba yalla jaglé leen googu jagle kon loolu firi limi firi moy kon mbaaxub way jur bi day rogalat jeexital ci xalé bi loolu nag tekkiwul ne ku sa waajur baax forcément da ngaa war a baax borom bi tabaaraka wa taala mooy génne ku ko soob ndax gis ngeen ni am na yonent yoo xamante ne kenn féetewu leen kaw ci mbaax te teewul am na seen njaboot yoo xamante ne dañoo wàcc yoon waaye dañuy wax ne reegal bu nekk dafa am exception ndax loolu ci coobare borom bi tabaaraka wa taala lay dellu waaye daal li wérte te wóor mooy mbaaxug waajur rawatina jigéen dafay jeexital. ci xale bi nga xamante ne moom mooy njaboot gi xool leen sunu euh, sang Mariam baax gi mu baaxoon ba yàlla may ko yonent yàlla Isa xool leen yonent yàlla Zakariya ba mu taxawee di ñaan loolu sax bokk na ci sabab yi mooy ñaan yàlla njaboot gu barkeel loolu sax lay tëje rabbi habli min ladunka durriyatan tayiba loolu la ñaan yàlla maa yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma njaboot gu teey gu barke gu baax lan moo xew gannaaw ga fanaadathu almalaikatu wa huwa qaa'imu yusalli fi lmixraab malaaka yi woo ko fekk ma ngay julli أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يلا wa nabiyan دوم alsaalihin yàlla may ko doom ju baaxee noonu boo xamante ne yonent bokk na ci liy tax jigéen ji am njaboot gu baax gu barkeel mooy muy ñaan yàlla nag ginnaaw bi mu defee ay effort ci yar boppam tegu ci yoon moom ci boppam njaboot gi ko yàlla jox mu teg leen ci aw yoon ginnaaw gi nag mu xam ne def na li ko waroon mu nag ñaan yàlla subhaanahu wa taala may ko njaboot gu baax te barkeel kon loolu eh, lenn la luy wane ni kon ndekete yoo mbaaxu wayjur rawatina wayjur wu jigéen wi day rogalaat day jeexital ci ak njabootam waaye nag ni mu koy sababloo mooy point yooyu nga xamante ne tudd nañ ko ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي